jungle asalaamaaleykum ñu ngi tudd Serigne Mbacké Dieng PDG bu Mouride Media Group bi édité le site mouride.info. jërëjëf dañu nekk doomi Bawal juddoo fi jàngee fi defe fi li fi ndaw lépp di defee ñu gis ne am na ñu fi nekk ñu xam ne suñu aîné lañ maanaam suñuy mag lañ di yëngutu ci ay domaines yu wutantiku yu fasantikoo tamit ñu gis nag ne ñoom ñëpp kenn ku si nekk ci li nga nekk kàngam nga ca kon dina baax ñu wan ndaw ñi nga xam ne dañuy soog a dugg ci yëngutu ñu wan leen tamit ne leen am ngeen mag ñu nga xam ne fañ nekk tamit ñu ñu respecté la waaw bu ma déggee bu baax ci sa laaj yaa ngi bëgg a jëm ak man ci côté bilan financier mais li ma bëgg ma xamal daal mooy ne c'est un bilan très lourd charge financière yu bëree ci nekk mais alhamdulilah sant yàlla parce que euh, biñ siy dem on avait une conviction benn gëm-gëm la ñu amoon mooy nekk lu mën a nekk la loo xam ne war nañ ko mën a def suñu borom dimbali nañ kàttan nañu bañ def ko mais métti woon na mais alhamdulilah. alhamdulilah parce que réussite bi du woon ma wala objectif bi du woon. xaalis kon comme ni ñu ko mën a waxee ci kàllaama kocc objectif principal bi bi ñu amoon mooy nañu nit ñi wuy si bañ xam liñ bëgg liñ bëgg mooy naka wan waa Bawol wan waa Sénégal wan waa àdduna ne leen kët ñun bi ñu nekk am na ñu fi nekk ñoo xam ne que ni ñi ngi yëngatu ngir dëkk bi jëm ci kanam comme ko waxee sànq nii da ci am ñoo xam ne tey bu ñu leen dee tudd dina xaw a indi jiixi jaaxa parce que boo dee xool tàmbali moo métti parce que booy tàmbali di nga am jafe-jafe ñëpp nga ñi nga xam ñëpp ngay bëgg jox wala wala ñoom ñoom nga bëgg a jox ñoom nga bëgg a mais dafa fekk ne comme ni ko sama mag sama xarit honorable député Abdoulaye Seck Sadaga waxee mooy ne ko ñëpp nañ ko gisee ne luy continuer la tey bu ñëwut ci man suba dina ñëw ci man te ku ma jege wala koo xam ne mu mënumaa tàggale ko moom bokk na ci dama koy ñaanal kooku loolu jib ko ñu xam ne que c'est une première bu nga xam dañoo ñaan yàlla at bu jot incha allah rabbi ñu am Euh, critères de sélection yi du woon lenn lu dul ñu gis ne que ni comme que dañuy door ñi nga xam ne que suñu borom dénk na leen des postes de responsabilité yoo xam ne que nga xam ne bu ñu fa toogee seen kàllaama dina egg ñi nga xam ne ñooy décider nañ leen templer parce que suñu mébét rek la mooy ñu fexe ba ñu fexe ba même xale bi nga xam ne day soog a dugg ci métier di def karo wala wala muy def tailleur te suñu borom may ko ci benn talent bu nga xam ne parce que suñu borom mooy fob li ko sopp mu def ko ci nit ki ki nga xam ne que ne tey dañ koy fekk ci place am di ko rang ñu ñu ne kat macha allah ciseau bi mu yor bu la bu la daggalee nangam ak nangam suñu mébét mooy dem parce que foofu tamit dana fa am lu ma fi leeral tuuti bawal du diggante Mbàkke ak Touba Touba la ba nangal ma limite raison de Thiès ak limite raison de Louga kon bawal yaatu na fi ñu tàmbalee nag mooy fi nga xam ne que yàlla may nañu ci diiru 30 ans wala 35 ans ñun ñii nga gis ñun ñu nekk sama ginnaaw fii la yàlla def ñu ganee fi àdduna ba suñu borom may leen at yi ñu am ñu ne nañ fi tàmbalee ñi nga xam ne ñi ngi weesalante ak ñoom di gis li ñu def ñu tàmbalee si ñoom ba bu ëllëgee ñu yokk étape par étape ba ba ñu man a daj li nga xam ne mooy surface su Baol Guéme waaw staff boobu mm, damay mm, dama leen di remercier di leen sant ci sa ci fu nga xam ne que ni mën naa ne tey bu ma doon yor li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy teraanga ji ëpp ci kaw suuf ku si nekk damay dem ba sa biir kër say say bokk toog ma defal la ko parce que am na ñoo nga xam ne yendootuñ yendalatuñ fanaanalatuñ nelawatuñ parce que dañ dañu amoon benn idée mooy naka ñiñ ci boole nañ leen boole ci benn groupe mais da ngay yenn heure yi nga dégg sa téléphone sonné nga gis ko nga xam ne mi ngi ci biir groupe bi di indi ay xalaat di joyanti di bi tey nii mel ni mu mel kon ñooñu amul loo leen fayee du sëñ Mbacke Dieng képp moo amal bis bi xëy na yàlla da koo may mu mu nekk ci bopp bi mais dafa am ay xale yoo xam ne dañoo am gëm-gëm ci xalaatu sëñ Mbacke Dieng am am gëm-gëm ci xalaatu Mourides Info ñu ñëw ne ko kat li nga nekk danañ ñëw jàppale la ci te yàlla tax parce que du kenn ci ñoom kuy xëy suba ba na ma sëñ Mbacke da nga ma jox dañuy xëy te te te yàlla tax bu ñu amee juróom ñu xam ne juróom lañ am kon ñooñu amul leen amul loo xam ne que ni da nga leen ko mën a fay lu dul di leen sant ak di leen ñaanal suñu borom xam ne moo am suñu borom mi xam ne moo am mu defal leen ko parce que teraanga suñu borom moo ko am man nañ am i pexe mën nañ am i mébét mais bu soobu suñu borom duñu si jot kon suñ borom mi nga xam ne moo koy joxe kenn ku si yaa xam la nga bëgg soxal yàlla na lu ko loolu organisation boo gis dina xaw a dina am loo xam ne maanaam niñ koy waxee ce sont ce sont des couacs te ce sont des aléas du métier parce que mën nañ ne yàgg nañ ci mbir mi am na si des obstacles yoo xam ne bu ñëwee dañ koy dañ koy tëb parce que yàgg yàgg nañ si milieu parce bu ñu dee xool Mourides Info mi ngi ci juróom-ñaari at de 2013 à 2019 am nañu obstacle yoo xam ne avant muy egsi ñu ngi koy seen muy ñëw mais dañuy wut des juste yu ay tegg yooyu nga xam ne que ne danañu permettre loolu buy ñëw dina fekk préparé woon nañ ko en conséquence yooyu nga xam ne tey moo ñu may réussite bi. laaj nga ma laaj boo xam ne ni ma si sawar a tontoo ci sama intervention yi ma def bi may waaj bis bi ba léegi nii léegi si mujj sama confrère bi nga xam ne moo nekk Sénégal maa ko posé la même question benn question bi nga moom la ma laaj ma ne ko bu ñu seetloo fan yi diggante Mbàkke ak Touba agression yi bëri na trop lenn donc ko sabab ñàkkum xëy fee kilifa yii tey ñu defal promotion wan leen ne leen yéen a fi nekk ngir di xeexal département bi fayetuñ ci kaw indi lu ñu lu tax ñu amum xëy ba xale yi mën a di teral seeni i waajur luñ gis ñu doyagut ndax doom mënta judd ba sol daal lu bàyyi mu jot ko te mënta joxe dépense mënta jënd suukar mënta jënd tàngal ñoom ñi nga xam ne que ne ñoom ñooy def promotion di def def politique di ñu woo ci mbedd yi ñuy soli tiset di soli xartum di daw ci naaj ba suñu daal di dagg fuñ buñ paloo dañoo war a xeex ci kaw pour jox xale yi am xëy feeg chômage bi persiste l'insécurité persiste agression yi ñu gis fii nii yëpp du lenn parce que xale boo gis tey nga mu xëy suba mën a wàcc wàccaale 2500 3500 joxe seen kër 1500 dese 500 ci poosam tëlut nekk ci mbedd mi di xeex bañ xotti ba bañ xotti mbubbam ñi fi nekk di di agressé di kar nit ñi yoruñu lu suukar màtt te li koy saafara nag Bawol dañ ne Touba c'est la deuxième ville du Sénégal mais deuxième ville Sénégal taux économique bi nga xam ne ndaw nit ñi fi nekk moom la ñuy gagné ci seen dund c' est inférieur à leurs besoins nit bu mënta am 1500 te bëgg a dépassé 2500 jafe-jafe am kon kilifa yi nañ xam ne message lañ leen lancé tey ab fii ci Baol Events ne leen fu ñu mën di nekk nañ xam ne que département bi nañuy def bay implanté ay usine ci béréb ay ndaw yi gox ba di ca xëy ñoom mën nañ ko plaider ci kaw ba investisseurs yi mën a ñëw investir Baol ma joxe ci benn exemple récemment honorable député Moustapha Cissé Lo de notre plateforme marocain yooyu mu seeti woon mu dem seen usine di vérifier seen i matériel ñëw nañ ba def visite de terrain à Darou Salam Darma dans un temps proche dana ñëw investir fi su su lu nga xam ne que ne dina am même bu freiné wul gab bi dina am lu mu ci dindi édition 2021 nii nga xam ne ñun ñëpp à partir d'aujourd'hui fii ñu taxaw nii lañ lañ koy lañ koy commencé préparé waat incha allahu rabbi